Pape Massamba ñu ngi lay nuyu di la dalal. nga teewal fii Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal ñu gën koo xam ci turu UNAPAS euh, tey ñu dégg njiitu réew mi wax ne dinañu amal conseil présidentiel jëm ci wàllum napp gi weeru mai gi ñu dëgmal tey ji lan ngeen jàpp ne conseil boobu moom la mën a apporter moom la mën a indi ci lii di napp gi. xanaa di ko rafetlu day ñaan yàlla mu bañ a nekk waxi kese comme yi fi daan jaar nit yi dañuy wax bind dugal ci tiroir fàtte ñuy ñaan yàlla mu bañ a demee noonu day xalaat ne conseil présidentiel tey buñ ko defee maanaam dinañ wax li nga xamante ne yëpp mooy problème bi napp gi génne solution yi def ay recommandation comme si njiitu réew mi la jógee am nañ yaakaar ne bii yoon dinañ ci am lu ñu neex yaa ngi wax problème ñu mënoon xam yan mooy problème yi exactement yi nekk ci napp gi napp gi benn problème la am. Mhm. problème bi mooy jën wi nga xamante ne moo tax ñu naan napp ndaxte ku naan napp ne jën jën wa nga xamante ne mooy ndey napp gi jën woowu moo fi amatul. mooy jën jën si boppam moo si Sénégal li tax mu raar mooy Sénégal ni muy nappee jën moo baaxul Sénégal déjà ñëpp xam nañ ne dëkku napp la ndaxte Ndar ba Cap Skirring dafa bari ay dëkku nappkat muy pêche ak nga boole ceeg indi ay bateau yoo xamante ne bateau yi rek ñoo ëpp gaal muy pêche industrielle bi li muy def mooy la sur surpêche tubaab li ñuy napp moo ëpp li ñuy produire kon bu yàggee rek dañuy am benn désert liquide maanaam dootuñu am sax géej. Mhm. donc loolu mooy problème bi problème bi mooy rareté jën bi jën bi moo amatul jën bi nag li tax amatul mooy niñ ko nappee moo gaaw moo bari ba pare bari doole si kawam kon loolu pour régler problème moomu il faut que ñu xoolaat nan la ñuy defaatee loolu nan lañ ban doxalin lañ ci indiwaat wàññi bato jekkalaat napp yi comme ni ñu wax ñu jekkal sàpp yi lépp jaar yoon. Mhm. tey jii bu ngeen doon dem ci conseil présidentiel bu weesoo rareté denrée bi ngeen wax ni moo fi ñàkk yan euh, solution ngeen jàpp ne buñ ko tegee napp gi dinañ ci andi saafara. bariwul solution yi bariwul solution bu njëkk bi mooy na président wax ne gars yi arrêté naa lépp luy licence Abdoulaye Sy defoon na ko Mauritanie lu yàggul président Mauritanie arrêté lépp. taxaw saytu lépp tegaat beneen affaire bu muy doxale géej ma ngi du ñàkk jën ba abadan mhm. nañu arrêté lépp parce que dans le désordre mënuñu si def dara mu sotti nañ taxaw acca bato yëpp ñëw leen port yéen ñëpp géej gi taxaw leen léegi ñu xool la yan yan de licence moo fi am yan type de permis de pêche moo fi am yan façon nappin moo fi am ñu saytuwaat géej gi mhm. saytuwaat géej gi ba mu pare si côté industriel ñu ñëwaat si pêche artisanale def lu a def defaraat defaraat loolu yomb na ndaxte yëpp solution yi gars yi xam nañ ko mais dañ ci dëgg seen tànk toog na. tey gis nañ ne organisation yi nga xam ne ñoo fi teewal euh, wàllum napp gi maanaam acteurs yi bëri na ndax ñoom tey déggoo nañ seen biir ba tey euh, bu ñu jàkkaarloog gouvernement ñu mën a wax benn benn kàddu. ah ñun de une passe réeroo ñox kenn yàlla dogal na loolu waaye nag am na doxalinu doomu aadama boo xamante bu ko nit bi doxal rek ñu réeroo yow. ñun képp koo xamante ne napp gi kese moo la tax a jóg ngay wax ngir nappa gi jëm si kanam kese te yàlla rek tax defoo dara ngir sa bopp defoo dara ngir intérêt yi nit wala intérêt yi ku mu doon wallahi doo réeroo ñun si wax ndaxte ñun ñii di wax a yéen amuñu masamba amuñu ma demba amuñu problème ak kenn liñ am problème mooy suñu géej gu ñàkk jën gii suñu géej bu amee jën ñun amuñu dara lu ñuy def lu dul dem jëli ñi ko ñëw indi ko askanu Sénégal kon réeroo ñox kenn kuréel goo xamante ne nag da nga jàpp ne nga réeroo ñun mais nangu loo toogaax ñun toogee ñun bu fekkee wax nga ñu wax li nga xam ne boo réer wax ñun yow yaa jogul pour nappak yi ñun dañ jox pour nappak yi tey nga yëkkati kàddu yi bu ay weer ci ginnaaw amoon nay kàddu yu ñu yëkkati ne ministre bee wax ne dafa am ñi nga xam ne seen intérêt moo tax ñu andi coow euh, bateau étranger yi fi nekk tey ndax da ngay dëggal ni am na ñi nga xam ne ñoo ngi fi toog waaye seen intérêt rek moo leen tax a jóg Sénégal loolu moo ko yàqal dafa am nit yoo xamante ne dañu bëgg ay wax ci napp gi te xam na la ñuy wax mm-hmm. seen njariñi kese nekk ci suuf fàtte askanu lëma ñu nag ko yooyu nit du ñu tax a noppi booy wax benn ñuy wax fukk sa kaw wala ne bu la jaralee fukk pour mu yàqu jaral nañu ñaar fukk pour mu baax. mais loolu ndax mais loolu ndax wanewul ne secteur bi kenn euh, structuré wu ko kenn réglementé wu ko. parce que moo structuré wu structuré wu na de. Ah. mais dafa am ñoo xamante ne ay benn benn nit ni mu amee si napp gi noonu la amee si mbay mi am si njaayam gerte mi am si lépp dafa am sénégalais yoo xamante ne yàlla dogal ñooy saraxam réew mi ñoom loolu la leen yàlla bindee intérêt kese la ñuy dundee. intérêt kese bu ñu xëyee suba ba ngoon jot intérêt ministre bu fi ñëw ñoo mas a taxaw sa ginnaaw wër la wax la lu dul dëgg yow nga jàppale ñii li ñu mooy lii gën pour nga defar parce que ministre bu falu na naa a la tax a jóg mhm. mais boo dégloo conseil yenn doomu adama yi ñu dugal la si guuta ba mën a toog génn yooyu nit ñooy daw rocceeku taxawaat fële di xaar banam ministre mooy ñëwaat même nit yooyu nag ñooy taxaw di dooleel seen bopp naan doole doole amuñu benn doole ñun faalewuñu dara lu dul dëgg wallahi lazim saxlaaw ñu fifty neuf kenn dëgg la ñoo dox dëgg la ñuy pour déggoo moom napp gee la tax a jóg ku réeroo moom nag napp gi taxu laa jóg am na leneen lu nekk sam tey ñu wax ci pêche artisanale njiitu réew mi wax ne dañoo dafa bëgg ñu euh, tollantiwaat ko maanaam nañ ko delloosiwaat joxaat ko gëddëm euh, déjà pêche artisanale moo ciy ban. mooy napp cosaan gi njiitum réew mi bu nee nañ ko joxaat gëddëm ñu ngi koy rafetlu si kàddu googu tey xam ne def na si ay jéego yëkkati woon na ay machine may ko mool yi loolu ñu ko si gërëm parce que aussi ñun ay niti géej lañ hmm. peuple de ñun dañu reconnaissant ku ñu defal dara dañ lay gërëm même buñ bokkulee yow gis-gis dañ lay gërëm waaye bu ñu weesoo ngërëm loolu ñu koy xamal nekk tey jii am na benn programme bu ñuy tuddee programme fibre de verre euh, pirogue fibre de verre gaalam yooyu balaa ñu koy dugal si géej gi di créer ay morgue si géej gi nañ waxtaan ak nappakat yi ndaxte gaal yooyu du nappin yëpp lañ mën a def benn hmm. artisanal mooy licence de pêche yi ñoom dañ nañu nañ réglo nañ nañ muté ci gaal man sama gaal 33 29 YF la dégg tey am na ñoo xamante amuñu licence xam nga lu tax. dañ permis dañ gelé permis de pêche yi artisanal yi ñu ne gaal yi nappakatu cosaan dañ bari ñu gelé ko bañ ko gelé ba léegi ñaata bato lañ fi jox ay immatriculation wala ñu sénégaliser leen wala ñu signé leen ay permis de pêche ak licence de pêche te benn bato mën a yàqalu téeméeri gaal di yàq. kon am na yoo xamante ne dañ ko war a saytuwaat à tous les niveaux ñu xool ko génne lee vraies solution teg ko sur la table ko te yàlla rek tax. bu weesoo euh, li nga xam ne moom mooy euh, li nga jàpp ne euh, dafa xajamal pêche artisanale bi tey lan mooy jafe-jafe yi dëgg yu pêche artisanale bi. pêche artisanale amul benn jafe-jafe président de la république keroog dafa taxaw mu waa Sénégalais mu ne dégg naa leen bu baax pêche artisanale mooy li nga xamante ne moo ëpp lu muy employé ci Sénégal. tey xale yu béykat yi xale yu sàmmkat yi si Sénégal doole ji ay nafakat lañ si sama waxin. Mhm. nafakat si naka mooy tey mbay mi ñetti weer lañuy def nawet bu ñu weesoo ñetti weer yi nawet dañuy ñëw dugg ci dëkk am tefes ñoom ñooy jaay café Touba yi si tefes yi ñooy dawal saret yi di yóbbu jën yi ñooy yanu kees yi ko jëlee si gaal yi am na sax si seen biir ñuy soli baas di yëg si gaal yi di ko bokkaax ñun ñooñu tey juróom-ñeenti weeri noor yëpp ñoox ñoo may nekk ñetti weer la ñuy bay yi ñooñu boo leen di compter doo leen sax wàññi ay baykat da leen war a wàññi ay mool kon secteur boobu xamante ne lépp ci at mi moo leen di dundal dañ ko war a jox cër jox ko gëdd sàmm secteur boobu ba mu ñoŋ mooy jën wi rek jën wi rek secteur de la pêche amul benn façon bu ko président mën a ñoŋale lu dul jën wi nekk fi ñu yor ay gaali joo gisu jën sax moo ñu gënal ñun ñëpp yor machine yu bees. mais jën wi nekk fi est-ce que tey Sénégal euh, gis ngeen yéen ñiy nekk ci euh, secteur bi gis ngeen ko mu farlu ci euh, protéger lii di ressources halieutiques am yi. waaw mais tey jii protéger ressources halieutiques xam nga ressources halieutiques. dafa am li ñuy tuddee ay produits pélagiques am ay produits démersaux. Mhm. mais tey Sénégal la moo tere mu toog autour d'une table dajale ñi nga xamante ne ñooy tëmbaaxateer man waxuma ñi nga xamante ne ñooy mooli costume yeex mooli karawaat yi ñii di tëmbaaxateer xam géej gi li mu laaj am magi cosaan yi daan dund géej démb ñooñu ngay dajale autour d'une table bu mag ñi joxe exposé démb ak barki démb tey ñi fi nekk wax la di nga am foo teg sa tànk xam lan nga war a def ak lan nga war loolu mooy solution bi amul ñaari ñetti solution téeméeri solution am léegi nag bu boobaa dinañ la xamal ban période ngay def repos biologique pour telle espèce donc loolu la loolay problème bi nan ngay def solution bi loolu la. Euh, sànq wax nga ko junj nga ko muy pêche industrielle bi ndax dafa yàq wala gàllankoor lool lii di pêche artisanale bi. waaye daka yàq daka rey gàllankooru ko yem si daka rey ndaxte pêche industrielle xam nga lan la. jën hmm. yi dafa am lu nit yi xamul. ma lay dégg ku nekk naa waa jën wiñ signé biir géej lay jaar nangam nangam gis nga aw jën ab jeenam la yor day taw jën yi dañuy dox rek di wàcc biti. jën wi tey boo fàttala ko at yi si ginnaaw ay at sa ginnaaw toog nañ fi tëj jaranka kulpu tëj nañ ko fi même pas six jaranka ah. ji dafa bari mooy jarankay Cheikhou Chérifou yi ñu doon wax mooy bi Abdoulaye Wade day doog a falu kilo pulpe di jar juróomi dërëm si Sénégal Sénégal géejëm moo nangu buñ tëj bu espèce buñ fi sàmm rek dina fi tëj ba jaaxal nit ñi mais bato yi niñ koy jàppee di ka tuur benn bu jàpp cent wallahi tour trois cent parce que bu mbaalee ñëw li mu dugal si ay li mu soxlawul da koy bale wàccee ko géej mu dee géej gi weex talax jëndu nëpp da ngay daw ba yem si sa xol di jeex nga biir dëkk ba ñi ñaa jooy jën yow biir géej yaa ngi gis jën woo dafay dee di nëpp loolu du yoon euh, tey jii ñu wax ci accord euh, de pêche yi euh, gis nañ ne ba fii may wax ak yow bëriwul liñ ci dégg ñi nga xam ne nee nañu am na ci lu positif yow mi nekk ci secteur bi ndax Sénégal am na li nga xam ne dina ko gañee ci accord yooyu nga xam ne xaatim na ko ak waa bitim réew mais accord boobu amul dara lu si baax accord bi lépp bon parce que accord bi dara baaxu si dara dara dix milliards lañ jaayee géej ak Sénégal. Hmm. cinquante mille tonnes pour juróomi at. mooy at mu nekk ñaari milliards loolu lan moo si baax kilo jën ñeent fukki dërëm manu jën mooy jar kilo ñeent fukk am yabay sax jaratul kilo ñeent fukk fii Sénégal il faut que ñu ñi waxante dëgg te yàlla tax accord bi ñun liñ ko mën a jàppee mooy est ce que adu accord ak weñ loxo ndax ki ñu signal accord bi ñun ëpp ñu ñu jaay leen ma par mais lii ñun xamuñu lu mu doon te ñaan nañ yàlla président bi si ay euh, li mu woote nii mu jaaree fa annulé ko parce que bu ko annulé woon dina créer emploi pour réewum mais moom en cas de comptabilité moom mooy comptabilité ah bu bilan positif moom la ñuy félicité bu bilan moom la ñuy critiqué kon moom loolu il y va de son mu saytuwaat ko xoolaat bu baax loolu nan la koy doxale mhm. sànq yaa ngi wax ci kàllaamay nasaraan ne da nga soxla woon audit. waaw wala yéen a ngi sàkk audit. ñu koy sàkk bu baax a baax ñun xam nga la lañ bëgg. Mhm. président xoolal ñaata bateau nekk ci seen réew. lañ la wax ci kayit ay wax wallahi ute naa li ci dëgg gi ñu ngi lay ñaan nga auditer sa géej gi saytul biir géej gi li fi nekk ci ay bateau. ñaata bato la yan bato ñoo ci nekk en règle yan bato ñoo si amit licence yan bato ñoo bokk si accord bi parti Resul lay bu ko defee dina xam li ñuy wax lu mu doon ñun liñ gis si terrain bi ak li ñuy dégg si dëkk bi ministre bi dem na assemblée nationale wax cent soixante onze navire moo am Sénégal ñun ne Ndar ba Yoff waññe nañ si lu ma trois cent kon daal ëpp na ko li ñu wax ak li fi ne triplé wala mu quadruplé que dañ xam ñaata bato yi nappa ci Sénégal moo tax ñi koy géeju Sénégal dañ ko war a di surveiller pour surveiller ka nañ na moyens yi mu laaj ñu jox ko marine nationale buñ ko joxee marine nationale marine nationale am doole joo xamante ne fu batoon nekk dina la fa fekk Arizona la yóbbu port nga fay alal. Pape wax ci actualité muy euh, nappkat yi nga xam ne ñu ngi leen dégg jamono ji ca Gambie ñu néewal leen li ni mel dañ ko faral di dégg ca Mauritanie ak it yeneen dëkk yi nga xam ne ñu sekk jamono ji tey ndax euh, gis ngeen wala ndax am na lu état teg ngir mu gën a protéger nappkat yi euh, ci yooyu les côtes. waaw ñaa ko protégé nafakat yi weesuwul ñu jël jën jaay kaa jaay jaay ba géej gi jeex sénégalais ya sentiratuñ seen bopp ci Sénégal di dem ci dëkk bi ñu féete penku ak ki ñu fekkee saw yeneen dafa ñaaw sax tey ji Mauritanie mu ñu féete nord tey Gambie ak euh, Guinée féete ñu au sud ñu ngi di daw di dem ci seen i dëkk di ñaan ay licence pour lan ñaanam licence alors que ñun ñëpp ñu am géej au départ te ñun ñu nekk ci digg bi gën leen a baax géej fuuf ñun ñu géej am na ñeenti bu Kayar bu man na fee am waa tey lu tax ñun ñu war a sàggane suñu géej wanteer suñuy jën sax saaxee suñu géej ñoom ñu sàmm seen bos ñun ñu dellu si ñoom bi leen ñaan ay licence sax kii ba suñu doom di fa dem di dund insécurité loolu du cër foofu lañ juumee lañ xoolaat foofu la ñuy njëkk a defar kon ressource ba mooy problème ba njëkk ba lañ fa déparé waat lañ dellu se waat sa boy boy ga ba tey dañ leen dàq génn leen géej gi yi man la ñàkk a des fi pêche artisanale ñu saytuwaat ko ku siy def nappin gu bon ñu jàppale teg lay daan ñu defaraat suñu géej gi loolu mooy solution bi ne bàyyi caaxaan yeex par parloo yeex ay waxtaan yu dul jeex. te yow daal gisoo ne euh, Sénégal war na gën a mën a waxtaan ak euh, ñooñu nga xam ne ségg nañu su ko defee nappkat yi nekk foofu en sécurité. waaw loolu kay comme bay wéy mbuus ba dem nañ foofu li fa sës mooy corps diplomatique mooy liggéey liggéeyam Sénégal fii ñu wax leen ñu réglé parce que ñun bari na suñu mbokk yoo xamante dañuy tooñ nag parfois dem dëkk jaamur fekk fa règlement jàkkat jolgati règlement ba def leneen yooyu yëpp ñu waxtaanee ko gis nga dëgg boo bëggee defar doo ko ragal lépp luñ ci war a wax muy dëgg yàlla rek tax ku la si mere mere la si mais na nekk dëgg te yàlla. Pape Massamba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa leen di jaajëfal yéen may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal représentant Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal UNAPAS merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup.